وهو كليتي يحيي بجاه الله ya mbokki jullit yi mbokki taalibe ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare tey nag ñu ngi fii ci daare Cheikh Bassirou moom Serigne Abdoul Khader moom Serigne Touba daare jii ñuy waxe sun labraar nga xam ne fii ak Touba war naa toll ci téeméeri kilomètre ak ñeent fukk wala téeméer ak ñeent fukk ak lu teg kon bërëb bu sori la nekk ak Touba sore na lool ak Touba tey nag ñu ñëw fii njabootu sëñ Daaru Xasan Ndiaye waaye buntu kër sëriñ Cheikh Mariamu Ndiaye te sëriñ Mbacke Mariamu nekk ca bopp ba ñu nekk fii ci daaray Hisnul Abrar daaray Cheikh Bassirou moom sëriñ Abdoul Khadir ngir ñëw ngir déjjiti ëkk yi ngir ruuj bërëb bi ngir seetal ko ci ndigalu Cheikh Bassirou Abdoul Khader Daaru Ndiaye gépp nag maasa ñëw ci turu sëñ Abdoul Khader waaye ci jëwrinam sëñ Mbacke Mariam mi nga xam ne mooy jëwriñu kat Cheikh Mariam lii nag mooy Daaru Ndiaye nit ñaa ngi nii xëy ngir jëm ca tool yi tey mooy ñetteelu bi xëy ndax keroog gaaw lan fi xëy ñëw xëy dal ci tool yi liggéey bi nekk ci ku ne xam ne na tool wu yaatu la waaye bi ñu xëyee ci dimanche ji nekk ci ba tey jii ci aldan di ñetteel bi xëy ñu war a xëy dem ci tool yi ngir àggale liggéey bi daa li ñu jot a gis nag am nañ yaakaar xel mu dal ci ne liggéey bi yaatu na lool waaye mbooloo mi war nañ ci pëseef ak njàmbaar ndax ku xam Daaru Ndiaye ak waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall gi nga xam ne ñoom leen àndal waar wi ñoom ñëpp ñu ngi fi dajee fi te ñaar ñii fu nu dajee day mel ne kon sëñ Tuubaa fa dajee ndax ñoom li nekk ci ñoom sëñ Tuubaa ko def ci ñoom kon day mel ne Cheikh Ibrahima Fall ak sëñ Daaru Asan ñoo tasee fii ci daare usul laborar muy daare Cheikh Basiru moom sëñ Abdul Xaadir kon loolu ñu ngi ci am njort ci ne la daa xew rek mooy xew ndax seigne Touba bi nekké ci waru di liggéeyal borom subhanahu wa taala fum ma sa nek nek na fa Cheikh Ibrahima Fall nek fa seigne daru hasan lolé loolu it mooy histoire bu répété wa tay ji fi ci Hizbut abra di ñaanal Cheikh basir Abdoul Khader nak yàlla yagal ko te wéral ko te li day mel la lépp ab taxawayam la waye mi dundal law mamam nekkoon mu Cheikhul Khadim àndakoon ak magna ndax lo rek lay firnel waye la wajurum nekkoon mu Cheikh Abdoul Khader di iliman tek ak lam nekkon ak magna waye la seigne daru hasan jay nekkon ak maam Cheikh Ibrahima Fall ak ñi ko wutu ñëpp sëñ Bay Falloo mi nga xam ne moo gën a ràññeeku ci kër sëñ Daaru Asan tey maam ci sëriñ Mbàkke Mareemu mi di ñaan sëñ Mbàkke yàlla yàgg ko te wéral ko سرت ذا خلب وقد كنت ذا يسيرني كالآل والصحب سرمدا ولي خاد سرا غاب عن خيره المخيل يسيرني كالآل وصحب سرمدا من فارق الريح يقول لسان الحال خديم من الجنات باغ يحبني هداه وبالمختار كليتي wala fi dañoo léb ne lëg bu lekkee alom na ko gërëme coy coy bi mooy sëriñ Mbay Folo mi nga xam ne lii lépp mooma moom la ñuy mooy suñu lépp te eh, daan wax ne eh, ndigal bu jag bu ndigal jagee lépp jag bu ndigal yàqu bu ndigal jëgul dara du jag kon nanu góorgóorlu baax ci jëfe ndigal te moytu tere tey dimbali ko yéen te ko yàlla tey booloo ni ko sëñ bi bëgg àndandoo nekk benn yal na yàlla dimbali ci booloo gi nga xam ne moom la sëñ Cheikh Mariam daan wax noonu àndandoo nekk benn ci la suñu lépp gën a gaaw a jage loolu mooy suñu ndigal nañ ci sax dàkk nañ ci yàlla dimbali ci barkeb kilifa yi ñu àndal mooy sëñ sëñ Xaadim moom sëñ Cheikh Mariam ak sëñ Black moom sëñ Cheikh Mariam lii yaatal liggéeyam islaam la ndax moom day liggéeykatu islaam day jàmbaar joo xam ne yaatal islaam moo ko tax a jóg moo tax lii lépp am ku ne xam ne Daaru Njaay ni muy doxe mooy lépp lu dikk benn baat lay doon te ndigal lii bi mu dikkee ci Daaru Njaay gépp la maase suñ suñ mbàkkee maanaam ay waajuram ñoo fi nekk waaye teewut ndigal li bi mu dikkee ay wajjum dañoo ñëw woo seen njaboot ànd koog moom ndax Daaru Njaay noonu lay doxee kenn ku ne lu wàcc ci yow wala lu laal ci yow laal na ci ñëpp te ñoom ndigal rek la ñuy dil ndax sëñ Bay Fala danaa wax ne ñun kat ñu ngi mel ne fasu naaru góor saa sun fasu naaru góor saa boo ko noppee jox euh, pepp mu noppee dund nga xam ne day xiiban wala day loof waaye ñun muriti Daaru Njaay yi ñun ndigal mooy sunu dund ndigal moo ñu dundal mooy dundal sunu kon Daaru Ndiaye moom ndigal la leen yàgg a xamee ci jamonoy sëñ Daaru Assane ba ci sëñ Mbay ba ci fi mujjee nekk nii muy sëñ Abdul Xaadir di ñaan yàlla yàggal ko te wéral ko ñoom seen bàkk bépp mooy ndigal jëfe ndigal te wattu na ko ay tere مليح ومعصوم من الناس والوهم مدينة علم مهتجل منة لنا ñu ngi fii ci daara Hizbut Abrahad ñetteel bi xëy ngir fas yéene dem ci waar rek di ñaan suñu borom subhanahu wa taala ñu àggale liggéey bi ci jàmm te tas see ngërëmal sëñ Touba ngërëmal sëñ Daaru Asan ngërëmal maam Cheikh Ibrahima Fall ànd ko suñu mbokki Baye tey fii boo fi dikkee day jàpp ne maanaam waa kër sëñ Daaru dong fi nekk waaye loolu mooy yoonu mu loolu mooy defar sëñ Touba fi mu toll mënoo xàmmee Baye Fall mënoo xàmmee waa kër sëñ Daaru Asan ndax ñoo bokk deret ñoo bokk sëñ Touba liñ mën da séddalo liñ mën da euh, séddoo te mooy Cheikhuna Ahmad al Khadim kon ku ñëw ci bërëb bi sa xel dana gën a dal sa yaakaar dana gën a ko ci yoonu murit seenu taxawaay ak seenu njàmbaar ak seenu pas-pas day mel ne waxtu association day gën di dolleeku day gën di yokk lu coow li bari bëri bëri ak lu jamono yëngu-yëngu saa boo demee ca keppaar yi nga xam ne sëñ Tuubaa moo leen defar moo defar seen maam a xam ne liggéey bi sëñ Tuubaa bi dara wàññeeku ci day gën di yokk waxtu association kon ñi ngi sant yàlla di ñaan liggéey bi ñu àggale ko ci jàmm tas cee ngërëma sëriñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu